société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse bisimila Abdallah Dionne samp na ndëndëm mbër lay doon ci élection présidentielle bu 2024 lii la yéenekaay yu bari xëy xamal ñu réew mi quotidien ne Boun Dionne kay dugg na ci pecc mi li waral mu bokk ci mi ngi koy wax ci biléb yéenekaay ak ci le peuple quotidien tàmbalee fàttali jaar-jaaram ci wetu président Macky Sall li mu doon tayit nee na Sénégal moo ko ko def loolaa waral mu soobu ci làng gi ngir jooyanti réew mi ci wàllu koom rawa rawatina Mohamed Dionne nee itam bëgg naa juboole réew mi di Sénégal ak ay ndawam ndax woowale diggante ñagas na lool ni mu ko nar a defee nag Mohamed Dionne nee na mooy fexe ba bépp ndaw buy yeewoo ci Sénégal nga am xëy waaye li Vox Populi xëy fësal ci xëtam gu njëkk mooy ne Boun Abdallah Dionne dafa lànk topp ci ginnaaw Amadou Ba Bakary Domingo Mané journaliste analyste politique bi ne moo yay ndax Mohamed Boun Abdallah Dionne amul lenn lu mu war a toppee Amadou Ba moo taxit Boun Abdallah Dionne lànk naa wàccee Amadou Ba mooma caabi yi 24 heures moo ni waxee ci ne Mahammed Boun Abdallah Dionne nag lii tax mu yay nit ñi mooy mu xeex jaayante ko ba wone ni moom moo gën a jekk ci wéyal liggéeyu président Macky Sall Macky Sall mooma la Boun Dionne tukku bi mu sampee ndëndëm jëm ci élection présidentielle bu 2024 le mandat moo ni gisee di laaj sax ndax dafa wor wala bëgg-bëggam ci wàllu politique moo ni toll Sud Quotidien ne weesu na Macky Boun Dionne kay bennoo ci boppam la tukku l'info ni kaay leen ma wax leen li candidature Boun Dionne bi di tekki double bouton bu Macky Sall moo dagg ci gëtu yéenekaay bi di fàttali ni keroog ba ko Thierno Alassane na yow bouton wu Macky sàll nga bun jon daf ni ko weesu naa bouton double bouton la fu ma makki Sall xool fa laay xool lu ma sant loola laay def kooka tey foo nee na moo daal di fippu yeeweeku moom boppam yor yor bi ne juum ngeen de demee noonu waajuta sax demee noonu ndax yéenekaay bi nee na bun Abdallah Dionne mi mooy tànneefu Macky sàll dëgg yéenekaay bi nee na umput kenn ne président Macky Sall xolam ak xelam Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ci nekkoon ba ñu tollee ci tànn candidat ngir Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne ñàkk pexe dong moo ko waral ndax bépp sondage di natt bu nu def jëm ci seen candidat ñoom waa bennoo Boun Abdallah Dionne ca gannaaw Amadou Ba la doon nekk ñépp ci biir bennoo ne ko affaire bi Amadou la ñàkk xam nu muy def ndax wéet ci tànneef gi ñeel Boun Dionne moo waral Macky Sall ngem bu ko ci suuf ngir mu samp ndëndam ndax Ba kot mu yenu drapeau Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bu 2024 moo ne day Macky Sall mooma ci biir bés bi le jour mi ngi naan Amadou Ba moo gën a jekk yeneen candidat yépp te aw ma xel ñaar ci ne daf leen di daan ci élection élection bi nu dëkmal nii la ma ki tëggee woowale élection ci biir yéenekaay bi walbatiku nag wax ci Ousmane Sonko ak partem bi di Pastef Macky Sall nee na li waral ñu tas Pastef mooy dafa doon lëkkaloo ki force islamiste waral mu naan ci vox populi nguuru Sénégal ci yoon la teg tas gi mu tas Pastef toftal ca aw laaj ni naka la nu mën a nangoo cim réew ab parti di woote bés bu jot ngir ñu nërmeel état ba nërmeel lépp lu fay yoon lataa mu cay indi tontu jàll na ci mbiram Amadou Ba ne mooy candidat bi bennoo tànn bennoo it donte sax jëmmi boppam moom amadu Ba doy nag njàppandal ci élection bi nu mal woowale élection makee ngay fàttali ni du ca candidat waaye nee na ñàkk bokk taxumaa bàyyi sama parti ndax ma wéy di ko jiite maa wéy it di jiite coalition Benno Bokk Yaakaar révélation ngi mel ni ku naan ñu boobale coalition génnagul ci guuta ndax Mame Mbaye Niang tekkaaralam gi narut jàmm yéenekaay bi gannaaw ba mu fàttalee ni Mame Mbaye Niang Amadou Ba danoo mel ni safara du nu laale ma nga naan ñu it Mame Mbaye bari pexe la te tekkaaralam gi bis bu ci génnee rek dëkk bi yëngu primature lu mën a yëngal ay bëgg-bëgg la ci wàllu politique las moo ni gisee firnde gi mooy premier ministre ya fa jot a jaar yépp ñett kott ñoo ci samput seeni ndënd ngir bëgg a doon président ci réewum Sénégal las ni duma ko tàyyi dama koy lim Mame Madior Boye la Habib Thiam ak Mamadou Lamine Loum bu weesoo ñii ñi ci des ñëpp rawatinaat ñi mës doon ay premier ministre Macky Sall candidat lanu ci élection présidentielle bi nu dëkmal professeur Amsatou Sow Sidibé it doon koy xamle ci Vox Populi ne li waral layti nit ci biir 24 heures muy wax li waral mu samp ndëndam bëgg a doon candidat ci élection présidentielle bu 2024 tuddee boppam candidat de la vérité et de la responsabilité beneen candidat di Bougane Gueye Dany booba jamono mi ngi diggante Xosanto Missira Sabadola Bafé Mako Tambacounda Kaffrine di ñaawlu ñàkk gu metti ga askan wa nekkee ak ni leen takk der yi bundu xataalee takk der yooya waa gendarmerie rawatina le procureur ragg seenu der ba mu set ci mbiram Marie Gueye di xale bu jigéen ba nu faat ca bi di Vox Populi procureur néew yóbbu ko ndax li autopsie bi wone mooy pancréatite aiguë hémorragique te itam amul lenn luy wone ne takk der yi dañu koo gaañ wala danoo dal ci kawam kàdduy procureur Abdou Karim Diop yooya waa Ngor dëbb nanguwunu koo dégg mer ba futtu lanu def ne li procureur wax taxawut tey teguwut fenn li dul dëgg du yoon kay docteur Bakary Thior ci libération ma nga naan mooy réew mu toll ni Sénégal centre de traitement de grands brûlés amu fi maanaam bu nit lakkee lakk yu metti yi bërëb ya ñu leen di fajee amut ci réew mi li sabab Derklé libération ne nu MD tin sax di ñaareelu jànk ba doon liggéey ca kër ga mujjee naa ñàkk bakkanam démb ñaar fukki at ak ñett la amoon loola yóbbu ci juróom-ñaar limuk ñi faatu ca boobale jéeya libération waxit ci jéey ja am ca hôtel Radisson Blu di xale bi am ñeenti at telab ca piscine ba waral ñu teg loxo ñaari nit yu ñu jàpp ne seen càggante moo waral musiba bi am mënoon na fee gën a metti sax ndax libération nee na am na geneen gone gu am juróomi at gu doon waaj a lab waaye baayam moo tëb ca piscine ba muccal ka Cheikh Oumar Diagne ci yoon ndax seeni càkkuteef fii ñeel bàyyib néggandiku ya ñu bëraloon dañu koo gàntal woowale jamono ñuy wéy di teg loxo yeneen ñooñi Ousmane Sonko libération de gannaaw Nafi Dieng ñu gën ko xam ci yaayu Serigne Saliou Falilou Niang it jàpp nañ ko Juan Branco ne Paris it jàpp nañu fa ay ñooñi usmaan Sonko gannaaw concert Youssou Ndour bi lanu leen di toppee mooy lan doon yuuxu libere Sonko maanaam bàyyi leen Sonko Sonko mooma bëgg ñu bàyyi kook yeneen détenu politique yi moo waral Colideb bëggoon a def tey doxub ñaxtu waaye préfet daf koo gàntal libération yeggee ko vox populi ne ko waaye loola du tee soxnay détenu politique yi ñoom fas nañu yéene wone seenu naqar tey cig dal te seen càkkuteef du lenn lu dul ñu bàyyi seeni borom kër yi ñu teg loxo Sénégal daa mel ni fi teg tànkam jëm ci CAN baaxul stade moo ni gisee ne yaa ngi ci chapeau 1 te bu mayuwul tirage bu méttee métti ci la jëm weeru octobre bi ñu jëm ci la ñu jàppoon jongante xaritooy waroon dox diggante Sénégal ak Mali waaye stade nee na woowale jongante du mujjee am ndax dañu